3MD énergie nekk na entreprise bu nekkee ci biir réew mii di Sénégal nekk fi benn entreprise buy defar lépp lu jëm ci wàll poste préfabriqué te di ko defaree ci biir réew mi. li ni mel nag nekk liy noppal kër googee di Senelec ngir mu mën a séddale courant bi séddale bu jaar yoon gox ko xaat yépp mën a am te du am benn ndog mu nekk nag entreprise bu ràññeeku ci biir réew mi ak ci biti réew rawatina ci Afrique gii nga xam ne mu ngi fay wéy di yóbbu ay mbiram. ñu koy jëfandikoo lool ci noonee nag ci la njiit la di la directeur général ñu gën koo xam ci Momar Diouf dellu siwaat ci seen teewaay ci bile panel bu Set Afrique muy meet-up bu 2022 bile. tey teew nañ si Set Afrique bii nii parce que gëmm nañ ne war nañ am ay ndaje yu mel nii wone doolewu secteur privé wu Sénégal. wane li ay doomu Sénégal di di défar fi yoo xam ne du ay euh, produit base kese mais ay produits yoo xam ne ay produits technologiques la ay sénégalais di koy defar euh, di jàppale état au Sénégal ñun principalement ci courant lañ nekk donc biñ ñëwee defar euh, poste courant bi ci Sénégal wàcce nañ bu baax njëgu prix bi. Euh, def ba de telle sorte que produit di disponible fii régulièrement de telle sorte mi nga xam ne mooy joxe courant ci kër yi saayu ko soxlaa mu nekk fii nii euh, bu ko defee suñ euh, sénégalais yi duñ fi nekkat di xaar ay waxtu ay waxtu pour produit bi jóge ba bitim réew ñëw fii pour courant mun a rétablir. Loué sous nous ñun wara nous wone ay entreprise locale désormais def liggéey bu les ci di avec les euh, sénégalais nous avons une expertise locale di koy sous-région de di té fait au Sénégal la Sénégal lañu si def see war a euh, parce que gouvernement a dañuy def politique pour dem conquérir ay yenen marché pour équilibrer wala augmenter sen exportation ak ses importation donc tay ma ngi lay né ci walu courant bi 3MD Énergie bok na ci ci acteur yi gëna mag et non seulement lolu ñun dégg nañ woté bi chef de l'État woté won pour que secteur privé bu mëna dajalo am doolé pour mu non seulement euh, bay waram ci commande public bi mais effectivement pour mon a dem attaquer ay marché extérieur lolo waral ñun en tant que ñi AC électricité bi am ben ndajale bu ñuy wax c'est une fédération a xam un acteuru électricité yëpp le fi bureau d'études moy installateur yi câbles, postes, comme nous mettons 3MD énergie dajaloo ci benn groupement ba pare le Sénégal ci programme d'accès accès universel accès universel madame, d'ici 2025 qui yi le Sénégal yëpp pas de mais village fu mu mënti nekk ci Sénégal am courant donc ñun suñ groupement groupe def ci offre pour mun a bëgg a état bi won ko fii nii am na ay doomu réew mi yoo xam ne vraiment mun nañ ko jàppale si liggéey bi pare nañ pour jàppale ko si liggéey bi. ku wax liggéey nag wax ay jafe-jafe rawatina ci sunu réew mii di Sénégal li ni mel nag moo waral entreprise boo xam ne mu ngi ci biir réew mi rek yaa ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yoo xam ne bu nekkul woon loolu nga àgg fa nga bëgg a àgg loolee nag ci la directeur général Momar Diouf dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo. ana li nek seeni jafé jafé ñom ba tere leen àgg fi nu bëgg ag wax nañ ko ci panel yi amna yu bëri yuñ ci sulé euh manam problème accès financement euh problème euh, financement extérieur yo xamné ba bu ñëwé en général bailleur bi day exiger ne tant de pour manam juróom-ñaar fuk pourcentage produit sama dekk lay euh, comme pour lima pour dolel exportation de dolel ay produits dëkkam di ñew fini lolu ku financé amna droit à part lolu ñu jaajeufal nguur gi parce euh, à travers département bu déploiement industriel man mi 3MD énergie à agrément agrément CEDEAO lañ koy wax bo permettre nga mëna exporter dans la CDAO té do fay douane mais yoyu tamit bon du niveau Sénégal mais état il faut ñu gën ci liguer de telle sorte que dans la pratique maanaam si jëfin bi mu gën a yomb parce que da am agrément bi mais boo demee ba si frontières yi malgré am nga document bi mais douane bi dalay sonal ba léegi donc vraiment yooyu ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jànkonteel mais à part loolu ñun en tant que 3MD Énergie mun naa la ne ni multinationales yi di doxee ñun noonu loolu mooy suñ gis-gis pas yooyu la ñuy topp moo le 3MD Energy aujourd'hui certifié entreprise bu am certificat Ils ISO 9001 entreprise bon am ne processus triple certification manam sécu certification ci sécurité certification ci environnement pour que vraiment pour entreprise multinationale qui yu gën compétir 3MD mën dougou sen digante compétir tamit euh, di len di wax né 3MD personnel bu dynamique bu formé bu jeune comme ni ngeen ko gissé ci stand bi mom lañ am vraiment ño xamné euh amna naa 3MD dana ko yóbbu fu gëna sori sori ci avenir bu gëna a gannaaw ba mu nekkee nak entreprise bu ñu certifié ñom wa 3MD énergie liggéey bu mucc ayib bu am qualité la fay nemmeeku mu nekk ay ndaw yu xarañ te sawar bëgg li ñuy def gëm ko gëm seenub réew taxaw temm nag ngir jaay réewum Sénégal ba fépp fu nit mën a nekk ci àdduna bi xam ne Sénégal ñu am xam-xam ñoo fay yeewoo. Pour terminer di remercier encore une fois de plus Alamine bu Bousset Afrique pour vraiment son dynamisme euh, jafe na métti na nekk ndaw nekk sénégalais essayer di percer euh, di déployer des moyens. pour wone secteur privé national u Sénégal li mën ak li mu nekk di def si si si biir Sénégal ak si biir bitim réew maa ngeen di jaajëfal bu baax a